kuréel bi saytu lépp lu ñeel assainissement di ONAS amal nañu tey ab visite de chantier projet bi ñu duppee renouvellement di collecteur de Hann dañu ñëwoon xëy si ci euh, euh, fii nii ci Ndakaaru ak li ak zone yi nga xam ni ñoo wër ñoo wër fii pour visiter liggéey yi nga xam ne ñi ngi koy def ci projet boobu mooy muy le projet de Hann Fann comme ni ngeen ko xamee Euh, son excellence le président de la euh, ku bàyyi xel mbirum hivernage la gis nañ ko bu nawet bi jotee am na am na yenn zone yoo xam ni sax moom ci boppam mooy déplacé wu euh, masse population yi xool difficulté yi ñu nekkee loolu moo tax aussi ñuy doon lancer ay plan ORSEC at mu jot pour wàññi difficulté yi nga xam ni moom la population yi di am ci ci mbënd mi ren nag ONAS teel na jóg lancer liggéey yu bare bari yoo xam ne dinaa ci ñëw Euh, ren projet bi ñu bi ñu tàntee nag pour waxtaan ci ak yéen mooy projet bu mag boobu ñu wax projet ANFAL muy projet bu am solo nga xam ne président de la République Macky Sall moo ko financé dans le cadre d'un partenariat public privé ci lu toll ci 82 milliards donc muy alal ju baree bëri yoo xam ne sotti nañ ko ci ngir wàllu assainissement projet bi nag euh, gis nañu tey ni liggéey bi nga avancé bu baax a baax collecteur bi nga xam ni mooy yóbbu ndox mi muy le collecteur principal nga xam ni lu war a mat 6 kilomètres 500 la liggéey bi Euh, daanaka mu ngi ci quarante pour cent kon sori na am nañ tey zone yi nga xam ni romb na fa jaar na fa ñi ngi connecté nit ñi ñi ngi pour seen pour seen réseau mën cee dugg ñu ñu bañ am benn jafe-jafe. am na aussi beneen volet boo xam ni cent cent cent kilomètres de réseau la cent kilomètres de réseau mooy téeméeri kilomètres yoo xam ne ay branchement yu ñuy def ci biir ndakaar ak quartier yi mu jaar ma ma fàttali ne projet bi jaar na ci plus de lu war a jege ci neuf communes. Euh, biscuiterie HLM euh, Jëppal euh, communes yu bëree bëri yoo xam ni mënu ko koo mënu koo lim ñoo ñëpp ñi ngi fay def un réseau de cent kilomètres réseau boobu itam woon liggéey bi gis naa ni lu war a mat 40 pour cent services yi liggéey nañ ko am nañ yaakaar ni balaa délai ba jot dinañ ko yeggali. beneen aspect bi des mooy le volet équipement yi nga xam ni moom la projet bi dugal mooy ay camions yu mag a mag ay camions hydrocureurs ay matériels yoo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ay moto pompe ak ay conduite yoo xam ni danañu mën a permettre effectivement bu nawet bi jotee ñu mën a génnee ndox mi ci ci ni mu waree kon loolu constaté nañ ko euh, gis nañ ko te am nañ yaakaar ni bu nawetee incha allah zone yi nga xam ne foofu la projet bi jaar liggéey bi dana en tout cas population yi da duñu dana effet dana wàññeeku ci ñoom jafe-jafe yi ñu doon am xëy na am nañ yaakaar dana wàññeeku waaye nañu xam ne lépp ci suñu borom la la tegu euh, ñu ngi ñaan nawet bu baax ñi ngi ñaan nawet barkeel ndax nawet moo yor réew waaye nawet tam bu baax day ànd inondation loolu moo tax ONAS fexe na ba ren ñu teel a tàmbali li nga xam ni mooy curage bi mooy nettoyer rigole yi nettoyer canal yi defar defar nañ ko euh, jeexagul waaye am nañ yaakaar ni balaa nawet bay jeex danañ ko pare incha allah fii ci ndakaaru ak yi nga xam ni euh, donc moom la moom la wër ñuy lancer appel population bi rek di gën leen a ñaanaat euh, ñu gën a bàyyi xel réseau bi xam ni réseau bi seen réseau la te ndox fu mu war a jaar leneen waru faa jaar donc te dañuy seetlu léeg-léeg nii suñu canaux yi dañ ciy sotti lu ne euh, lu ne lañ ci lu ne lañ ciy gis ah ñu ngi ñaan population ñu gën a bàyyi xel loolu surtout ak tabaski bi ñu jëm ñu gën a ñu gën ñu gën ñoo dimbali te am nañ yaakaar ni dinañ ci bàyyi xel euh, incha allahu taala am na yeneen zone yoo xam ñu ngi fay liggéey liggéey yu am solo yoo xam ne lancé nañ ko bu curage bi jàllee euh, yu ci mel ni unité vingt 22 ci ci Parcelles Assainies Pikine commencé nañ fa ay liggéey suñu wax cité Jonkob ñu ngi fay liggéey ak yeneen zone yoo xam ñu ngi ci biir Ndakaaru ñu ngi koy liggéey pour uniquement pour fexe population yi maanaam seen jafe-jafe wàññeeku ci ci ci ci nawet bi. ci biir région yi aussi fu mel ne fu mel ne Fatick euh, am na liggéey am solo ñu fay liggéey ndax gis nañu Fatick daaw inondation bi sonaloon na leen waaye yàlla mi ñu defal sutura entreprise mi ngi liggéey te am nañ yaakaar ni dana sotti. fàttewuñu aussi projet Touba bi nga xam ni projet bu am solo la nga xam ni président de la République dugal na fa lu waa toll ci 45 milliards boo boolee ñaari assainissement yi mooy ndox mi jëfandikoo ak ndox mi nga xam ni moo moo jógee ci ci taw bi. loolu yëpp di ay ay liggéey yoo xam ni état bi engagé na ko président de la République Macky Sall sumb ko uniquement pour wàññi euh, jafe-jafe yi nga xam ni moom la population bi di dund ci ci mbënd bi euh, donc ñu ngi koy loolu moo ñu indi woon fii tey ñu ngi koy suivre incha allah. am nañ yaakaar ni daal yàlla danañ may nawetu jàmm te bu nawet bi ñëwee euh, inondation yi bañ ñoo sonal mbën ni bañ ñoo sonal population yi nekk bañ am ay jafe-jafe. ci loolu ñu tasee ak délégué de quartier yi di waxtaanee lépp lu jëm ci mbandu mi. mais donc nous vous remercions monsieur le maire monsieur le président de l'agent envoyé c'est bien ça. les délégués les délégués de quartier. je pense que c'est un projet important mais auquel effectivement les populations doivent être associées. et euh, à travers donc euh, par les maires et les délégués de quartier. Je pense qu'il nous faut une bonne synergie entre le maître d'ouvrage, l'entreprise, au finish euh, bénéficiaires de cet important projet qui, comme je le rappelle, le président de la République a injecté plus de 82 milliards hein, département de Dakar. Donc c'est important. J'ai noté avec beaucoup d'attention, effectivement. le, le, volet aménagement paysager euh, qui a, que vous avez évoqué, effectivement. Au-delà de ces travaux d'enfouissement de, de, canons, etc., de, du réseau, au-delà même également de l'aspect euh, des effets des euh, branchement euh, on appelle, du, réseau assainissement aux, aux nous devons travailler également à cadre de vie adéquat pour les populations. Comme on vous l'a le projet l'a bien intégré. Donc il vous appartient à vous de formuler des requêtes en tant qu'autorité territoriale. Donc vous formulez ces requêtes-là et en relation avec l'entreprise, nous les examinerons et verrons ensemble comment participer au cadre de vie, améliorer effectivement l'aménagement paysager de, de, de, de, ce coin. Mais rappelons que l'objectif, euh, le but vraiment fondamental, c'était la, la connexion au réseau. Hein, c'est quartier, c'est quand même plus de 40 ans. Je ah, donc euh, donc c'est des quartiers qui datent aujourd'hui de, de, très longtemps. Il, il, était normal que le réseau soit, soit renouvelé carrément, euh, qu'il y ait un nouveau réseau de, de, faire ici. Donc nous demandons collaboration véritablement de toutes les populations euh, des travaux. pense que d'ici la fin de En tout cas, l'objectif, c'est qu'au plus tard, mars, février 2024, ça. Hein, que ces travaux puissent être livrés aux populations avec les résultats que, vous, que, nous connaissons. Maintenant, pour le marché, euh, li ma que je veux dire marché HLM, c'est ku ne xam na ni am na ay marché am na ay jafe-jafe. Mm-hmm. soxla na ndox mi fay génn ñu mën ko ñu mën koo génn yóbbu ci réseau bi mm-hmm. ndax marché barab la boo xam ni euh, population dañ fay daje lu bëree bëri. donc priorité la pour projet bi priorité la pour ñu ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo koy liggéey waaye xam ngeen ni marché liggéey ko yombul ndax feeji day bari jamono yii ñu ngi jëm ñu ngi dëgmal tabaski ci Korite lañ génn bu tabaski waa weesoo am na yeneen feet yu am donc danañ lal ay waxtaan ak euh, le préfet de Dakar euh, ak itam euh, commerçant yi association commerçant yi ak mairie bi ñu waxtaan ensemble xool ban moment mooy gën a baax mooy gën a propice pour ñu def liggéey bi nga xam ne dana mën a jaar yoon te du yàqal trop trop commerçant yi seen seen liggéey waaw ñi ngi xalaat sax liggéey ko ci ay guddi wala yu mel noonu waaye loolu yëpp équipe bi dinañ ci waxtaan pour ñu xool nuñ ko nuñ ko nuñ ko saafara incha allahu taala. inondation moom depuis 2004 ñun ñu ngi ci biir ndox mi kenn mësuñu cee jëlee du plan Orsec du ONAS du dara loo xam ne tey jii mës na fee ñëw jëlee ñun ñun ci suñu problème inondation bi ñu nekk ñun ñooy débrouillé wu ci suñu bopp. ut ay moto pompe yoo xam ne nu mu tuddee dañ ñu koy abal mbaa mu di ñu ku nekk ku yor bu ndaw indi ñëw teg pour ñu mën a évacuer ndox mi dañuy toog toog ay 3 jours yoo xam ne mba voire une semaine yoo xam ne am na ci ñoo i biir yi kër ndox dafay fees égout bi di ci problème yooyu noonu la ñu nekk lii image à l'appui la lii mooy koñ bi nga xam ne moom moo nekk ci ginnaaw gis nga niveau bi muy niveau ndox mi ndox mi day nekk ba ci biir koñ bi alignement bu nekk ci ginnaaw ñëpp dañuy abandonné seen kër dem seen yoon te du duñu gis kenn koo xam ne fa lañ ko mën a jooytoo duñu gis kenn koo xam ne mën nañu ci jëlee te ñun nag nu mu tuddati même dans le cadre de la responsabilité sociétale d' entreprise tey jii ne waa ONAS ñun Cité des Eaux daf ñu war a jàppale lu tax ñu tudd Cité des Eaux suñuy papa ñu ngi fi dëkk depuis 1961 ñoom tey jii ne réseau Dakar bi bu existé ñii ñoom ñoo ko gas ak seen i loxo boobu noonu ay pelle mécanique amul ñoom ñoo ko liggéey parce que ñoom ñëpp ils étaient des travailleurs de la compagnie générale des eaux du Sénégal ba indépendance ñëw SONES ñëw ba ñu ñëw SONES ñëw ak benn E SDE ñëw ba tey jii nii seen o donc ñun ñu fi nekkoon kër yi nii yëpp yëpp ñu fi nekkoon kon ñun bu ñuy wax dañ naan comme li mbarit wax xaalisu làmb lañ leen ngénte mais ñun tam xaalisu ndox mi lañ ñu ngénte donc nag nu mu tuddee ci biir responsabilité sociétale d' entreprise boobu noonu ñu ñaanaat encore une fois LONASE bi nga xam ne yow yaa la directeur général yow yaa ko incarné yow la président de la république Macky Sall teg ngeen jàppale ñu ci problème boobu noonu yooyu noonu da moom mooy suñ suñu doléance fondamentale amul lu ñu ciy yokk amul lu ñu ciy wàññi lu dul ni ndox mi sonal noonu sonal noonu ba ba ba instant bii sax na mu tudd on est en train de vivre la psychose parce que ñi ngi nag ñi jàpp ni rek lawoon daaw instant bi bu nawet jotee rek ci problème boobu nañu nekk dañuy rester ay jours yoo xam ne ñun ñi dañuy taxaw chef de quartier di veiller duñu nelaw di xool loolu daal de moom mooy suñ suñ doléance fondamentale avaloir yi mu mën a jël pour ñu mën ko ten ñu mën ci tenir en compte muy jël ndox mi en ni ngeen ñu mën a jàppalee jàppaluñu ci li nga ci jóge parce xam ne édificandi la depuis 1961 suñu papa ñu ngi fiy dëkk am na jenn problème yoo xam ne amuñu ko woon loolu noonu daal mooy suñu doléance yoo te boo xoolee foofu laa doore moo tax ne la loolu noonu dafa ñoo fekk ci moment bi nga xam ne moment bi ñu ko doon xaar la ñëwee parce que réseau bi boo avancé woon ci kanam fële la tuuti rek boo xoolee fële la ndox mi mi ngi génn yaakaar naan déclaration moom nu mu tuddati fële na la ci ONAS ci numéro vert a abandonné ancien réseau bi ab dem ci réseau bu ñu tegaloon sax ay sabar nu fecc parce que xam na ne loolu noonu baax na ci ñun dina nekk li nga xam ne loolu noonu moom moo ñu dimbali ñu tàggoog li nga xam ne moom mooy moom mooy le vieux souvenir. Mamour Diallo di xamle rek matuwaay yi ñu jël ngir saafara li ni mel. li tax ñu ñëw fii mooy euh, saytu euh, tey liggéey bi nga xam ni dañ koy liggéey naa la cadre du projet Hann euh, fan muy projet bu am solo. nga xam ni état du Sénégal def na ci lu war a toll ci quatre-vingt-deux milliards euh, projet boo xam ni ci dëkkuwaay yi nekk biir Ndakaaru lu war a mat juróom-ñeenti commune euh, yaakaar naa ni danañ ci danañ ci bénéficier danañ ci profité euh, ñu defal leen seen assainissement quartier yi nga xam ne amuñu woon accès à l'égout ni ñu koy waxee ñu fexe ba ñu am ay branchement dañuy wax branchement secondaire ba ndox yi jëfandikoo yëpp mën a génn bañ a taa bañ indi ay jafe-jafe comme ni ngeen ko daan xamee ndax boobu amoon na fii ci Ndakaaru amoon na fi ci Cité de Eaux fii ñu constaté ne liggéey bi daanaka jeex na pare na wàllu li nga xam ne mooy assainissement eaux usées ma ci félicité bu baax a baax euh, équipe yi nga xam ne doon liggéey notamment l' entreprise euh, le groupement Synergie Afrique yi nga xam ne ñoo liggéey liggéey boobu ba tey ñu mën fee mën a taxaw ba population yi effectivement mën a am résultat bu bu wóor te wér ci wàllu assainissement eau usée mooy ndox mi nga xam ni moom la ñuy jëfandikoo euh, li ci des mooy pàcc bi nga xam ni moo aju ci wàllu ndoxum taw mi wax nga ko léegi mooy pàcc bu am solo ndax ndox moom ndox rek la euh, muy lu am solo ñi euh, ñi koy doog a xamal tey effectivement ni ngeen ko waxee yéen a ngi dund situation yu jafe yéen ngi dund ay jafe-jafe yu metti ci wàllu woowu ah équipe yi wax nañ ma ko danañ ko xool nan lañ koy intégré ci suñu ay programme parce que fii projet bi fi amoon mooy projet eaux use defar nañ ko wax dëgg yàlla mettre nañ ko en marche te am nañ yaakaar ni si fin d'année euh, quartier yi nga xam ne nekk ci Ndakaaru yëpp dana pare. li aju na ci cité des eaux fii point bas la boo xoolee diggante tali bi ak fële euh, pente bi dafa kawe donc fii point bu wàcc la point bu point bu point li ñuy wax point ba point bas nag dafa laaj liggéey boo xam ne bi beneen projet lay doon. jël nañ ko en compte danañ ko dugal ci programme ONAS incha allahu taala pour jàppale leen parce que li ñu président de la république sant mooy fépp bépp gox bu am ay jafe-jafe ci wàllu assainissement ci wàllu inondation ñu saafara ko bu population mën a dund ci conditions yu baax donc danañ ko góorgóorlu danañ góorgóorlu def ko. waaye fii nawet bi li nga xam ni moom la ñu mën a wax te mën cee teg baaraam parce que nit buy wax day wax li mën a nekk ak li mën a def mooy danañu wut équipement de pompage yu doy. yoo xam ne dañ ko indi fii teg ko fi joxe naa instruction léegi le directeur de l'exploitation ñu indi équipement de pompage teg ko fi bu ndaw bu ndox amee parce que hivernage ren bi ñu ngi ñaan ñu ngi ñu ngi ñu ngi am yaakaar ndox mi dana bari julit bu ne day ñaan ndox bari Sénégal dañ ñaan ndox mi bari ndax ndox bu bari mooy mooy indi kaaraange mooy indi koom ci réew mi dañ koy ñaan waaye ndox tam bu bari faw mu indi inondation faw mu indi ay ay ay trop plein ak ay surplus donc jox naa institution d' l'exploitation danañ fi indi ay équipement yu baax ay moto pompe yu am doole yoo xam ni bu tawee danañ mën a puus ndox mi génnee ko ba li ngeen doon dund du ngeen ko mën a dund. loolu solution provisoire la solution transitoire ci nawet bi bu loolu jàllee nag dégg nañ doléance yi danañ ko étudier service danañ ko étudier bu baax a baax xool li nga xam ni moom la war a mën a def ba régler le problème bi de façon le problème de façon définitive loolu moo tax ma ñëw fii tey ba ma ñëwee fii ci cité des eaux c'est pour rencontrer les autorités. rencontrer population mais surtout déglu leen xam seen ay jafe-jafe dans une démarche très transparente amul lu ñuy nëbb c'est un dialogue euh, ouvert et transparent avec les populations euh, dégg nañ ko euh, donc directeur de l'exploitation dégg na ko balaa ci fañu néew dinañ indi équipement yi d'ailleurs nañu xool responsable bu ñu koy jox mu ñu gérer ko ñu jox ko moo xam délégué de quartier bi la wala yéen ñi nga xam yéen a koy gérer ñu jox leen ko bu jotee équipe bi dinañ ñëw incha allahu taala bu ndox amee ñu mën ko pomper comme sa ngeen mën a dund dans de bonnes conditions donc loolu amoon lu may di maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf. projet de renouvellement du collecteur de Hann nekk projet bu am solo ci njeexital bi la visite jëwriñ bi ñu dénk office bi di Mamour jàlloo mu ngi xam ne rek dinañu wut ay pexe ngir saafara mbann mi mu ngi ñaax itamit askan wi ñu gën a bàyyi xel ci seen installation yi ñu def gën a itamit gérer déchets solides yi.